bokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhanahu wa taala julli ci yenenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jéggal tomb bi bi ñuy fàttalante tey dañu koy tënk rek ci benn xew-xew bi nga xam ne moo gën a siiw ci réew mi tey muy daloo gu ñuy daloo jumaa yi masaalikul jinaan bokk yi daloo masaali jumaa yi masaalikul jinaan tey jàng walla jàngat walla bind bu rëy mi ngi ci bokk na ca mënees na caa jànge jom mënees na caa jànge aw fit mënees na caa jànge pastéef ak bennoo li tax ñu mën ko cee jàngate mooy benn boroom xam-xam doomam daa laxas jàngi ba dikk mu laaj ko sa xam-xam ci lu màcc mu ne ko man kay salmashi tala mag ñi noonu lañ doon natte xam-xam diw salmashi tala mooy lu la soob laaj ma ko mu ne ko waaw loolu de ci këyit la nekk waaye dama bëgg bu subaa boo xëyee nga xëy dem foo sa lu may takkusaan nga wàññiku te loo gis nga wax ma ba mu wàññi ko mu ne ko loo gis mu ne ko gis na jaan ju génn ci am pax mënatu ca duggaat mu ne ko loo ca jàngate mu ne ko dara mu ne ko wax nga gis wax muy dem nga gis wax bu xase ba génn jeex na borom mënatu koo téye ñaareel ba mu ne ko damaa gis ndox mu bari moo xam ne nit ñaa ngi tey xuus di jàll ma gisaat ndox su tuuti soo xam ne nit ñaa ngi cay lab mu ne ko loolu loo ca jàngate mu ne ko lenn jàngatuma ca dara mu ne ko ndox mu bare ma nit ñay jaar di jàll mooy bokk gu tasaaroo kum neex jaar sàkk waaye ndox su tuuti soosu nit ñiy lab mooy bokk yu ànd te àndandoo ku ca dugg des ca loolu feeñ na ci liggéeyam jumaa jooju waaye loolu yomb naa misaal ci ne mbooloo buñ booloowee mën nañ lu nekk xool leen xorondoom mii rek nga xam ne nit mën na ko def jël def ci jibaam mbooloom xorondoom mu bari def ko ci jibaam te du ko yàqal aw yoonam waaye mag ñi danañ dem ci këri xorondoom yi bu xiif amee di ko toj di fa jël luñ dunde lu ko fa yóbbu du bopp yu rëy yu ñu yor yu ñu yanoo du ay yoxo yu ñu jàppe du ay tànk yu ñuy kër daa waaye dañoo doon mbooloo kenn ku nekk buy dem wenn fepp lay yor ñu jiitle kenn ku nekk topp ci sa moroom kenn du téqatal sa moroom kenn du fakkatal sa moroom bañ jal ko fa ba mu ne gàññ ba nit ñi jaaxle bay dem ci këri xolonam di fa wuta ji luñ dunde kon mbooloo mu ànd ak noonu waaye ay yamb itam yamb kenn xamewu ko ku xam ku ko mës a gis te gis te xam bañ da ngay defee ne ay bañ kese lañ waaye fu wenn jóge ndax mer ñu def la ñu def nit ki am ndiiraan bu sakkut pexe rek mën nañ ko fagaaga kon liggéey boobu mënees nañ sa jàng jom jom lu nekk ngi ci biir baat boobu waaye fit lu nekk ngi ci biir fit waaye pas-pas bu ànd ak jom ak fit mën naa sottal lu nekk waxantuma nag ña koy def su fekkee dañoo ànd doon benn dànk kon réew mépp war nañ cay jàngate ne ña doon liggéey liggéey ba jëfandikoo nañ ci li wolof di wax naan ndoxum teen teen moom taw da ko faa war a fekk akum ndoxam teen ndox da ko faa war a fekk tan taw da ko faa war a fekk akum ndoxam lu ñu la bëgg a bëgg a bëgg a jàppale wala lu ñu la bëgg a bëgg a dimbale te yuroo dara fasoo yéenee def dara it doo am dara waaye bokk yi kon foofu li ñu ci jàngate rek mooy sukkandiku ci sa dooley bopp loolu nag boo ko déggee mooy ku xam boppam nit daa war a xam boppam bu xamee boppam lam ciy jëkke mooy xam ne yàlla rek a fi nekk te mooy buur di bum mi lu sotti moo ko sottal moom nag mu fas yéene jóg sottal dara yàlla jàppale ko waaye feeñ na ca it di def te yàlla rek tax ndax lañu wax ne moom lañ ca def ci alal ñépp ko soxla waaye nag yàlla lañ ko lebal te ëllëg suñu borom nee na am na bët wala solom boo xam ne solom mooy bopp bu robinet boo xam ne ëllëg ña cay naan mooy ñi muy bëgg a wax mooy ñi nga xam ne luñ mës a nësër sottal nañ ko mën na leen fe bañ a fekk waaye ñañ fa bàyyi ñoo bokk pas-pas ba danañ ko wéyal ba nësëram àgg ñaareel ba it dañuy togg aw ñam di ko joxe kuñ xam ak kuñ xamut te fekk ñam ma buñ koy joxe ñoo ko gën a soxla kañ koy jox te boo leen bëggee sant ñu ne déet soxlawuma sak cant cantuk suñu borom la soxla aynan yashrabu biha ibadullah ibadullah yufajjirunaha tafjira la ko waral ma yuufuuna bin nazar بالنظر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا waaye tur bi nga xam ne moom lañ ko jox dafa mel ne suñ jàngatee li jàkka di jariñ yeyoona tur woowa lool ndax yi jàkka di jariñ benn bu ci nekk maslak la lil jinaan waaye nag suñ booloo ñoom ñëpp dañuy nekk masalik lil jinaan bokk yi jàkka bu ñu ko dee xamle dañ naan bu ñu ko dee xamle ci diine dañ naan mooy fépp foo xam ne nit dafa sukk maasale ba mu maase mu dëpp ab jëm ak bakkanam ak yaari tenqam ak yaari bëti woomam ak ñaari cat tànkam ñaari baaraam yi dayi tànkam te yàlla rekk tax loolu mooy fa mu ko defee moo tudd masjid moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo moom la ne ab jullit fu ko julli jote na julli foofa masjid la rawati nag ñu wutal ko ay màndarga yoo xam ne moo ko wuutale ak dëkkuwaay nit ña dëkk ci seen dëkk ba te ñi koy jàngale dañuy wax ne nu dëkk ba toll rek ak jàkkaam ba ba muy doon jumaa waaye nag bu mu yées ca dëkk ba jumaa ja wala jàkka ja bu mu yées ca dëkk ba maanaam daal bu ko kër yee gën loolu feeñ na ca waaye ak am soloom njariñam fii lay tàmbalee jëm àllaaxira njariñam ca àllaaxira mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ku tabaxal yàlla ab néeg ci kaw suuf te mooy jàkka lu mu tuuti tuuti bu mu ko xeeb yàlla moom dana ko tabaxal ni mu toll kër ca aljanna loola nag bi sëriñ bi ñaan ci dëkkam bi ñaan na ba agsi ci képp ku fexe ba dëkk bi doon ab dëkk na dugg ci ñaan googu fexe ba dëkk bi doon ab dëkk jàkka moo ca jiitu yàlla na nga jéggal ñi bokk ci tabax gi boole ca kane ay ci la ñu tabax ko ak nu ca way mën a jàppe loolu wax yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam lay tekki waaye bokk yi jàkka ak am soloom bokk na ca moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëkk jëkk santaane bis ba mu jógee makka al mukarrama ci ndigalu suñu borom di gàddaay ba mu agsee fu ñuy wax xubaa ca bëj saalumu madinal munawwara waxtu julli jot la ne nañ fi daal taxawal jàkka léegi julli fi mooy jàkka ji ñu jëkk taxawal ci diine waaye ba mu demee madina it waa madina teeru ko ku ne bëgg mu wàcc sa kër te yaayay dane nañ bàyyi gëléem gi moo nit ñi ñoo bokkum noos ci noos suñu borom la ñuy dox fu mu yëse daal nañ xam ne foofee fa la barab ba nañ ko bàyyi mu àtte bi ko Muhammad al Busayri di way bokk na ci li mu ko doon xamlee di xam la ne bokkut ak nit ñi wute nag ñoom ci wet yu bari nee na jamaadaat yi sax day ñëw di wax ak moom doj ji ak xeer yi wal jamaadaatu afsaxat billadi uxsi uxrisa anhu li ahmad al fusaha bàyyi leen gëlëm gi fu mu yës rek fa la barab ba ba yàlla dogalee gëléem ga di wër ba yës ci barab boo xam ne diwoo ko moomoon diw bëgg koo joxe addiya yonent bi da ko ne ana loo ko doon jaayee boo koy jaay mu ne nangam mu wàññi teg ci loxoom waaye lu mu fa jëkk def nañ fi taxawal yàlla ab néeg ba noppi muy jàkka moo ne sëriñ bi itam de toppandoo royoon na ko ci lool bi muy sañc Mbàkke Bari dañu faa jëkk a defar kër ba mu mel na war a mel mu door a ñëw waaye ba mu ñëwee dana ana jàkka ji ñu ne ko defar guñ ko mooy nañ defar jàkka nañ dindi lii ba noppi nañ ko dindi ba mu set bëcc ma gis ñu ñu ñu dindi sàkkat ya xet di néeg ya mu ne defar leen jàkka ji ba noppi dal na jàkka li ko tax a jóg mooy julli te ku julli dox sa diggante ak say soxla am nga julli te soxla du la raw waaye képp koo xam ne bàyyi na julli dem ci ay soxlaam la muy soxla du ca jot te julli raw na ko ba noppi di leen jëkk sédd yàlla ba noppi loolu it am na si jàkka ja ndax jàkka jumaa ja la ñu fa jëkk def ci kër ga kër ga amagul kon bokk na ci am soloog jàkka jàkka nag su ma ko waxee tuddal naa jumaa am nañu boo nee jàkka dañuy dañu naan da koo tuutal jumaa la waroon wax te fekk benn la wuute gi rek mooy jumaa moom dañuy tëj jàkka yi bisub aljuma dem ca saa su nekk ñu sopp jàkka juma bokk na ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci jàkka la ko yàlla defale loo xam ne ci masjid mosu koo defal kenn ku ko jiitu woon ci ay yonentam yonent yi ko jiitu woon bu ñu daan julli seeni masajid fenn dong la daa nekk du fu leen neex jullee waaye moom nag nee na yàlla da koo may moo ko xeetam fu leen julli jote nañ julli masjid la tekki dañuy am yoolub dem ca jàkk ja sallallahu alayhi wa sallam bokk yi ci biir li jàkka di liggéey muy njariñul àdduna lu fës fa la jullit yi daje loolu daanaka du xibaar du lu kenn xamut waaye la leen fa tax di daje dafa war a am jeexit jeexit ja mooy buñ xasee ba taxawal di julli mën ngaa bañ a xàmmee kii mooy président walla kii mooy baadoola baadoola mooy ku dul président rek ku ñu fal ak ku ñu falul rek ngir mu gën a woyof doo xàmmee kii ministre la wala kii député la doo xàmmee kii ab sëriñ la wala kii taalibe la ñëpp ay taxawandoo benn yoon mbagg ak mbagg tànk ak tànk foofu nag jàngat bu rëy la boo xam ne jàkk rek a ko mën a boole nit ñi ñëpp yem ci taxawaay di xaar kenn mu rukkoo wala mu jóg wala mu sujjóot nekk googu benn ci la ñuy xame ne jàkka lu mat a jàngat la waaye it ñun ñii ci yax bu mag lañ bokk ak ñun ñii yax bu digg dóomu ak bu sewit doo ko ca xàmme kon ñëpp dañuy tudd rek ay jullit koo ci woo mën a jullit laa waaye bokk yi waxtu wu jot nga jullee ko ca jàkka ja it su matee ay fan bañ tàmbalee xamante dana jur xamante am na ba noppi waaye dana jur am lante bu dee jàkkay koñ yi léeg-léeg bu ñu gisul diw suba gisuñ ko tusubaar ñu ne anamoo su fekkee daa wéré di ñu xam ñëpp seeti ko su fekkee daa tukki ñu xam ci lim nekk waaye daal ku manqué danañ ko xam te kon day mel ne kooka kay manqué ab cër la ci sa jëmm ji loolu bokk na ci njëriñu jàkka waaye jàkka it barab la boo xam ne day jàngale daa war di jàngale mbiri tey ak ëllëg li muy seen tey te ab jullit waru caa jëm mu ne moytu leen ko bu ci ab jullit nekkee mu ne ko génn ci lay xew ëllëg it saa su nekk mu di ko ko fàttali ba tax fi muy teg tànkam mu xam ko moo ne jàkka yi dana sàmm ngëm ndax léeg-léeg nga gis ku wéradi wéradi goo xam ne danaan mënta julli ji waaye saa bu sooxee ba àgg dana fa gis koo xam ne moo koy tane fuuf ndax moom ay tànkam la doxee ñëw mën na faa fekk koo xam ne fa mu ne toll la toll mënta mënta jóg mënta taxaw mën na faa fekkit koo xam ne moom bi muy ñëw laaj laaj tawul aw yoon waaye kooka danaan yóbbu leen ma ca jàkk ja loolu it man si jàngate ne di dem ca jàkk ja lu am njariñ la njariñul àdduna lu teew loo xam ne nit ki dana ci jànge lu bari waaye jàkka moom léegi la waaye ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo doonoon dajewukaay jullit yi lu ñu leen daan wax rek ci jàkka yi lañ leen di dajale waaye fa la ab doxandeem daan fanaan ku dox ba agsi ci dëkk ba te amut te amut lu ko jàllale ci dëkk ba mu jëm mu ñu ubbil ko jàkka ja ndax gane suñu borooma ñu ubbil ko kër suñu borom ak néeg suñu borom mu fanaan fa waaye ñi nga xam ne it demuñu du tukkiwuñu waaye ci dëkk bi lañ bokk it te amuñu fu amatuñu fuñ fanaan dëgg-dëgg ca jàkka ja lañ daan fanaan bu ñu xëyee bale ba mu set bi ñu raxas dem ba ngoon jotaat ñu dellusi waat waaye fa lañ daan defare gone yi ak mag ñi itam ak góor ñeeg jigéen ñeeg ñépp ndax dañ fa daan xëy di joxe ay bind bari na ci jàkka yoo xam ne ba fi mu toll nii waxtu suba ak waxtu takkusaan dañ fay joxe ay bind jumaa ji ci jumaa Tuubaa ci la bokk daara ji mook jumaa ji ñoom lañu ubbeendoo ma nga fa ba fi mu toll nii daarul maarif al islamiyya kon loolu it jàkk yépp war nañ cee bàyyi xel dafa jàngukaay ndax kat bokk yi léeg-léeg ñun xamuñu fal ak fol li rawatina imaam waaye nag jàkk ji ne war naa am daara joo xam ne dañ fay jàngal nit ñi seen diine ba bu imaam xëyee xëy mënut a dem ñu génne ci daara ji daal di koy mën a wutu fa saasa wala ñam fa fekk sax ñuy jàng te génneguñ ci daara ji waaye bokk yi tabax jàkka ci màndargay gëm yàlla la bokk junj naa ko léegi jël alal joo xam ne ñëpp ko soxla nga defe ko néegub yàlla boo xam ne bii moomu ko sa moroom du ko moom ëllëg loolu it màndarga mu rafet a rafet la ci ne nit ki lu mu am mën na ko jox yàlla waaye nag loolu ñuy wax ci jàkk yépp li muy defar nit ci ruu ak ci jikko lépp di ko jàngal set di ko jàngal nekkoo be nekk benn di ko jàngal lu bari ci ak dundam ki ñu wax ne nag moo tax jàkka di dund mooy kacay julli ji jàkka moom bokk yi tabaxuñ ko ba mu rafet rek moo xam mu rëy walla mu ndaw kese kese ngir ñu di ko yéem donc waaye waroom xam-xam yi nee nañ bu dee dañ ne ndox mii ndoxum barkeelu la nang cay barkeeloo mooy naan kepp su ko defee ndox mi def ci yow li ndox li ndox di def bu ca barkee topp dara ca topp waaye si naan dong la mën a jaar su dee ab téere la téere barkeelu la ubbil jàng su dee digle nga def su dee tere nga bàyyi barke ba topp la waaye su dee jàkka it julli dong lañ cay barkeeloo du raay teg ci sab jë du raay raayaalal sa njaboot taf ci sa biir taf ci say tànk taf ci say lex déedéet kiñ tudde ne mooy kiy dundal jàkka mooy ki nga xam ne saa bu jàkka wootee kenn du ko fa jëkk kooku moo tax ñu tabax jàkka waaye nañ moytoo dugg ci ñi nga xam ne yàllaa ngi leen di tëkku ci fexe ba jàkka ba ñu def ab liggéeyam yàlla na nu ci yàlla musal yàlla diggee na ci lu diis lim ko lim diggee ci jàkka jooju nag jullit yi génnuñu ca wa man azlamu mimman manaa masajid allahi an yudkara fiha ismuhu wa saa fi xarabiha ulaika ma kaana lahum an yadxuluha illa xaaifin lahum fi dunia xizyun wa lahum fi alaxirati azabun azim yàlla nañu ci yàlla musal nee na amul kenn ku dàqatooñ kii ñuy bëgg a wax tabax jàkka ba mu ne seng mel na mu war a mel mu tëj ko rab kenn du ci dugg kenn du génn kenn du julli kenn du bàyyi wala boog ku bëgg a julli ji mu ne la ah man di fii lay tollale rek kooku bu ñëpp defee ne moom jàkk rab tëj ko kenn bañ caa julli ba muy daggati root loolu moom bariwut waaye ràpp gi tax ñuy wax mooy ñu julli ñu tabax ko ba noppi ba mu mel nañ war a mel nga jege ko lool te booy jullee ko si néew da ngay tollale bu ko rab bi coppee nag doonte tolloole diine bañu ko waaye ki tax jàkka di dund daal ba bokk ci lim boobee man amana billahi wal yawmil axiri wa aqama salata wa ata zakata wa lam yaxsha illa allah mooy koo xam ne buñ noddee mooy woote kenn du ko fa jiitu yal na nu yàlla musal bañ bañ a bokk ci ñi nga xam ne dañuy ràppal jàkka yi bokkoon na ci njariñu jàkka yi foofu laay jeexale te nit ñi amalatuñ ko solo mooy jàkka dadaa tàggale nit ak ku ñàkk nit ku mënut dara néew doole lool dem ca jàkka jàkka ñëw dafa ko daan tàggalee ku ñàkk léeg-léeg bu ñu demee ci alxuraan dana ca fekk suratu ali imran kullama daxala alayha zakariya almihraba wajada indaha rizqan qala ya maryam anna laki hada qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yashaau bi gayri bi gayri xisaab soo demee ci réew yi nga xam ne diina ma nga fay dund dëgg dëgg dëgg dëgg jullit bu jaaxle ci sa mbir sa jàkka ja ngay dem bokk ca sàppe sa léeg-léeg nga dend ak ponkal moo xam ne loxoom jotul gannaawam musalmal xool la xoolaat la xam ne kii yàlla mëneegu ko gan mu dugal loxoom ci jibam nga la ko foox nga xool ko rët daana am kooku la sëriñ bi waxoon ne lu julli dox sa diggante ak moom ñàkkoo ko kooka am na yoolub julli ba noppi waaye am na yoolub bett benn waaye mu ne xinnet xool ko te xinnet xool jëratut ay wax nit a ngi ne koo xam ne jaaxle naa jaaxle jaaxle ba xamut fu mu jëm yaakaarut kenn ndax foofa dimbali xëju fa daa mel xewu fa foofu nag jullit yi war nañ cee jóg bu baax a baax mu taseeg benn waay rek am ci moom yaakaar wax ko yi téem bu dee juróom benn téeméer la mu yëkkati yaari kayit yi bu ci nekk ñaari junni ne ko am mu xool ko ne ko waaw sëñ bi yow la kan mu ne ko mën a diw mu nakk gañ-gañ ne ko du ma la wax dara demal rek loolu lépp la foofu nag jullit yi war nañ faa taxaw ci jàkka la bokkoon bëgg def lu baax rek dem ca jàkka ja moo ne am na koo xam ne ci réew yi ñu dëkk la dendal réew yi ñu daan réew mi ñu dëkk la dendal doonutoon sax ab jullit daa xam ne réew mi mu yore jullit yi bari nañ fa lool te yayoo nañ jàkka mu tabax jumaa ju mag ñu bari ne ah jumaa joo xam ne ki ko tabax du julli dal man du ma ci julli ci teeŋal lool te moo ne bokk yi jumaa ciment ak suuf lay doon xaalis xaalis lay jaar bu jubloo xibla bu jubloo xibla tapiye laab dara nekku ci ak ku ko mën a tabax waaye nag bu dul bu dee ku dul ab jullit moom jërëmu du ci seentu ab yool yool ab jullit ko tax tax a jóg wallazina kafaru amalahum ka sarabin bi qiaatin yaxsabahu zamanu ma an xata ida jaahu lam yajidu cheyan téewut ab jullit mën koo jariñoo bañ ko waxee loola ba mu teeng ba teeng kayiti xaalis yooyu ma wax rek la jaare daa jox aw nit kenn ku nekk ab saak bu nekk guun ñu taxaw ci bunt yi ku génn ñu jox la këyit bu mag te booba këyit bu mag amoon na njariñ ñu ne gannaaw nag nii lay demee bi ajuma ji ne mën naa am kenn dutuma fi jiitu te xamuñ sax par ajuma lay doon waaye suba gi wóorul naay julli ji suba naay julli ji tisbaar naay julli ji takkusaan xamu xawma kañ laa fay dajee teg borom saag kon boog loolu kenn waru cee jiitu jullit yi ci wut lu baax kon boog jàkkaa nga noonu def ca ab dërëm denc bu dul sànkar la bu dul yàqu la rawati sa nag di ca julli ji rawati nag su fekkee jàkka ja ma ngay liggéey liggéeyu jàkka di jàngale di gindee di waññee te jullit yi di fa dem di fa dimbale jullit yi yàlla na nu yàlla dafa dégg ak topp te yàlla na yàlla fay fu waay maan tabaxe jàkka ci kaw suuf ak ñiy dem jàkka ak ñi am yéene te mën a guñ yàlla na leen yàlla man loo ñi joxe suuf suñu tabaxee jàkka ca la ñuy bokk buñ dee ay jullit lañ ci yool ba la ñuy bokk kenn du leen ci ëpp ndax bu suuf amul doo tabax waaye ñi nga xam ne dañuy defar plan yi it kenn du leen ci jiitu ñi am xam-xamu taxawal mu jub buñ dee ay jullit kenn du leen ci ëpple buñ dul ay jullit nag contrat la xaalis lañ si xel ñoom dañ leen koy jox ñu dem ñu dem kepp waaye keneen ku ca taxaw taxawaay boo xam ne jàkka ji wala jumaa ji mënu ko woon a ñàkk it da nga cay duggaale soo dee ab jullit soo dul ab jullit it jullit yi war nañ laa sant rek xam ne sa diggante ak ñoom ci dëkkandoo rafet na rek nga dem ñu dem. xam ne alal ja nga yoroon alal suñu borom te lu baax lu nekk ab jullitu ko tax a jóg lu baax lu ne morom bu waddee morom ji lay wëri ñu yore taxawu bi it ak fu ñu ko mën a taxawoo ak jàkka ju mën a doon it ca la ñu bokk. ndax am na ñu doon def desu tudd jumaa naka ni waaye bokk yi ñu dëkk ak jumaa ja it bu dee ca masaliku gi naan laay wax ba léegi ñoom it mënuñoo génn ci boobu yool ndax néew na suuf su tol noonu ñu jox ko diw ñoom ci fu tol noonu fu mel noonu ñu liggéey ba mu àgg te déggoo jenn ñool ñool it ñooñu it wares na leen sant wares na leen a gërëm ndax dëkkandoo yi mucc ayib lañ yàlla na yàlla fay ñëpp jéego ya ñuy dox di ca dem ak jéego yi si di dox di dem ci jumaa ju mën a doon ak jàkka ju mën a doon yàlla bu jéego ya neen te yàlla na yàlla dimbali rek ba ñuy def te yàlla tax yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin